Yoro Seck maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax soxna si. Euh, Yoro Seck nga nekk membre bu secrétariat à la communication bu parti mi euh, fan yi nag euh, nit yi dañoo constaté ñàkk déggoo bu am ci diggante président Macky Sall ak président Idriss Seck lan nga ñu mën a wax ci réeroo boobu nga xam ne nit yi ñu ngi koy laam-laamee. ah man de président Macky Sall ko gisuma ko. li ma xam daal te muy instruction yi nga xam ni moom la président Idriss Seck jox mooy. nañu liggéey anime li nga xamante ne mooy parti bi parti réew mi mais tamit nañu gën a dëgër li nga xamante ne mooy coalition Benno Bokk Yaakaar te ñu toog déglu ki nga xamante ne mooy président coalition bi muy le président Macky Sall lii daal laa xam ne yëguma benn réeróo boo xamante ne dox na seen digg ñoom ñaar ah bon ah, ah pourtant sax euh, démb am na benn vidéo buy circuler ci réseau sociaux yi ah, ñuy wax ni sax a président Macky Sall ah, nuyuwul euh, président Idriss Seck lan nga ñu ci mën a wax am nga ay leeral yoo ci mën a indi. waaw mais am na vidéo bu wane carrément que ni ñoom ñaar nuyoonte nañ angle bi nga xamante ne moom moom la beneen vidéo bi wane mooy dafa am nit bu dox diggante champ wu bi. ak euh, président Idriss Seck ak président Macky Sall euh, ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy manipulation ci la ñu aay ak bëgg a xool wax lu ñaaw ak lu bon daal ci profité pour wax ni ñoom ñaar mu yonte wuñu mais yaakaaruma ni sax solennité jour bi bis bi muy lu doy ni 4 avril ñu nekk ci li nga xam ne mooy tribune officielle bi ñaari homme d'état yu doy ni moom dinañ ñëw ba faw duñu nuyonte loolu loolu loolu mënul nekk sax ce n'est même possible heureusement am na vidéo boo xamante ne wane na ko mu leer nañ président Macky Sall ak président Idriss Seck ñu taxaw nuyonte ensuite président Macky Sall continuer euh, mais dañ si teg ay waxtu rek gannaaw défilé bi ñu gis benn post buy euh, défilé euh, ci page Facebook bu président Idrissa Seck ci page am nag wax na ay kàddu yu bëri wante kàddu gi nga xam ne sénégalais pratiquement moom la ñu gën a jàpp moom mooy nee na président Macky Sall ànd na ak yéen ba jël Coupe d'Afrique des Nations jot na nag man ma ànd ak yéen ngir jëli Coupe du monde bi dans quatre ans lu ni mel ñu bëri jàppee ko nag comme une déclaration de candidature pour élection présidentielle bu deux mille vingt quatre lan nga ñu ci mën a wax. waaw li ma wax rek mooy euh, lii nga xamante ne daal moom moo nekk ci poste bi te ñun ñëpp ñu gis ko mooy président Idriss Seck mu ngi euh, samp ay laaj yoo xamante ne mu ngi koy laaj ndaw réew mi maanaam la jeunesse loolu nag nekk na loo xamante ne mooy li factuel moo nekk ci poste bi maintenant ku ci am xalaat wala nga def ci commentaire yow yaa mooy mu ngi samp ay laaj digganteem ak ndaw yi nga xamante ne ñooy ndaw Sénégal ci fànn yu bare bari politique économie sport et cetera loolu daal gis naa ko ci mooy li nga xamante ne moom la bind te ñu ngi xaar jeunesse bi tamit ñoon di ci ay ay tontu. ñu gis ni tamit euh, bi loolu weesoo post bi nga xam ne def na buzz démb bu baax a baax euh, ci réseaux sociaux yi yàggul dara euh, ñu ne Idrissa Seck jël na décision daal di remplacer ba Diattara ak kile di docteur Ndoye ci post deuxième vice-président au parti Rewmi loolu tamit lan nga ñu ci mën a wax coïncidence yu bari yooyu ak mbir mi ni ñu daal di teglantoo waaw texte yi nga xamante ne ñoo mayoon président Idrissa Seck mu jël Yankhoba Diattara def ko deuxième vice président du parti texte yooyu ñoo ko mayaat tey jii mu jël ki nga xamante ne mooy docteur Abdoulaye Ndoye def ko deuxième vice président du parti mu remplacer ki nga xamante ne moom mooy Yankhoba Diattara donc pour man loolu warul am sax commentaire texte suñu parti yi ñoo ko ñoo permettre ki nga xamante ne moom mooy président parti bi mu mënoon na ci secrétariat national bi. te loolu rek la def deful leneen Yankhoba Diattara balaa muy nekk vice président euh, moo yoroon vie politique ak structure yi Idrissa moo ko fa nommé woon ci secrétariat national bi moo ko jëlee foofu nommé ko vice président tey moo ko jëlaat ci vice président bi am na ñeneen yeneen liggéey yoo xamante ne moom la ko bëgg a dénk loolu nag texte parti bi ñoo ko permetre pour man amul benn problème boo xamante ne war ko ci ñu ko ciy wax. mais ñu bëri dañu jàpp ne Yankhoba Diattara li tax ñu euh, génne ko ci poste boobule moom mooy dafa valider deuxième quinquennat bu président Macky Sall euh, looloo tax ñu euh, Idrissa Seck daal di koy remplacer loolu la ñu si mën a tontu. waaw loolu commentaire la rek mooy li ma la wax rek xam nga li communiqué communiqué parti bi wax daal waxuñu ni lii wala lee mooy li nga xamante ne moo tax ñu jëlee ko fi texte yi nañ président bi mu nommer texte yi nañ président bi mu dogame loolu mooy li nga xamante xamante moom moo am ñu bëri jàpp ni euh, euh, parti bi di réew mi nekkul la mu nekkoon euh, parce que ténor yu bëree bëri ña nga fa woon te jóge nañ fa ku si demee ni ki docteur Abdourahmane Diouf ku si demee ni ki Oumar Sarr Oumar Gueye Thierno Bocoum maître Nafissatou Diop Cissé Pape Diouf ak tamit peut-être sax ñu bëri ñu ngi xaar Yankhoba Diattara dal di fay jóge ñu jàpp ni réew mi sax dafa dal di nekk parti boo xam ni dee na ba pare loo siy Fatou Yoro waaw mooy li may wax rek xam nga président Idrissa Seck wax na ko nii ñaata yoon lañ ko tàgg ci ci politique wax ni il est mort politiquement loolu bari na lu loo xamante ne tàggee nañ ko ci buñ buñ ko ci tàggee waatee tamit loolu du nekk problème mais li ma bëgg a wax rek ak respect bi ma amal ñëpp ñi nga xamante ne tudd nga leen ñoom ñooñu nga tudd ñëpp 2012 ñu ngi fi woon te 2012 Idrissa amul woon sax 7 pour cent wala wala ci la tolloon am na ci ñoo xamante ne ci ñoom dem nañu ci deux mille dix neuf te bi ñu ñëwee deux mille dix neuf Idrissa vingt pour cent la am benn million wu sénégalais votel ko donc loolu mooy li nga xamante ne moom moo am mu may fàttali li nga xam ne moom la président Abdoulaye Wade doon wax euh, parti politique moom euh, benn saxaar la wala benn bus la boo xamante ne rek dañ ko teg en ligne muy daw saa yu ci arrêt am na ñuy yéeg saa yu ci arrêt am na ñuy am na ñuy wàcc loolu mooy li nga xamante ne moom moo am euh, terewul Abdoulaye Wade ñu wàcc ci ci ci ci bisom bi pendant ces vingt six ans bu ñu demee deux mille euh, deux mille mu gagné élection yi fàttaliku leen quatre vingt dix huit quatre diggante quatre vingt dix huit quatre vingt dix neuf ñaata ténor ñoo jóge woon PDS euh, dem fekke woon le président Abdou Diouf terewul bi ñu demee en deux mille en deux mille Abdoulaye Wade moom moo moom moo gagné donc euh, yëf yi nii rek laa ko jàppee man ak respect bi ma amel ñooñu ñëpp nga tudd li nga xamante ne moo am solo pour ñun c'est le président Idrissa Seck te moom la nit ñi di di topp. ñu ñu bëri nag di xaar tamit euh, Yankhoba ki quitté parti réew mi. ah ñooñu ñi koy xaar de bëgg naa leen laaj lan moo tax ñu koy laaj Yankhoba Diattara dinaa koy dégg moom mu ni bëggul dara wutul dara ndax moom nee njaboot la moom njaboot rek la loolu lay wax. Hmm. comme nag njaboot la moom njaboot moom day topp ci ginnaaw kilifaam rek man loolu laa laa xam ñun loolu la ñuy yaree njabootu kanaara lay doon kilifa gi lay topp rek day jiitu rek njaboot gi topp ci ginnaaw kon gisuma lan moo tax ñoom ñu war a xalaat ni Yankhoba Diattara day day jiite parti bi. bu fekkente ni sax Idrissa Seck narul nekk candidat wu parti réew mi euh, nit yu bëri tamit ñu ngi xaar peut-être Idrissa Seck nekk euh, candidat wu coalition Benno Bokk Yaakaar pour élection présidentielle bu deux mille vingt quatre bu fekkente ni président Sall sampul ndëndam loolu yoro ñu si mën a wax. waaw li ma wax mooy mbirum candidature yi moom waxtaanee liggéey la ñu siège bi wax donc ñun ñu ngi toog di déglu moment bi nga xamante ne jot na pour ñu waxtaan ci bu boobaa dinañ ci wax li nga xamante ne moom mooy suñu suñu suñu position incha allahu rabbi euh, loolu daal mooy li nga xamante ne mën nañ ko ci pour le moment li nga xamante ne moom lañ ñu sant jóge jële ko ci ki nga xam ne mooy le président Idrissa Seck wax naa la ko sànq ma fàttaliwaat la ko mooy ñu animé suñu parti bu baax a baax a baax mais ñu dëgëral coalition bi nga xam ne moom lañ bokk muy coalition Benno Bokk Yaakaar te déglu kilifa coalition bi muy le président Macky Sall. ñu bëri ci commentaire yi dañuy wax ni Idrissa Seck dafa war a jël ay responsabilités euh, tekki ndombal tànkam ca conseil économique social environnemental euh, dëggal boppam samp ndëndam loolu la war a def daal di laaj réew mi. waaw xam nga euh, mooy li ma wax xam nga ku bëgg ku xam Idrissa xam ni du ragal. ku ànd ak Abdoulaye pendant vingt six ans ñu nekk ci opposition bu méttee méttee méttee nga wëlbatikuwaat daanaka defoo ñaari at ci nguur gi delluwaat ne moom mooy opposition def loolu ñëpp xam nañ ni kooku du ragal kon nag man li ma gëm te xam ko mooy tamit mu nekk nit koo xamante ne ku am fulla la ku am fayda la kenn du ko def looloo xamante ne bugg ko def kenn du ko wax loo kenn du ko jël la décision te fekk boobu boobu buggul wax donc loolu mooy li nga xam moom moo ci nekk rek euh, xaw ma lan moo tax nit ñi war a wax naan dafa war a jóge ci conseil économique social wala dafa war a dëggal boppam ak nangam nangam koo xamante ne vraiment euh, bi mu bi muy dëggal boppam boobu ñoom ay xale yu ndaw lañ ko am vingt-huit ans Euh, ñu li nga xamante ne moom mooy euh, nga nekk ki nga xam ne moom mooy a amul amul courage kooku am courage question peut-être euh, appel bi nga xam ni président Sall lancé na ko ci discours traditionnel am bu 3 avril di dialogue la woote avec les forces vives de la nation gannaaw tension politique bi nga xamante ni gis nañ ni moom moo am ci réew mi président Sall lancé dialogue naka nga ko gisee lu siy sa xalaat. mais lu ñuy rafetlu la dialogue moom xam nga président Senghor dafa doon wax ni Sénégal ci un pays de dialogue te dialogue dafay dafay permettre li nga xamante ne moom mooy démocratie bu muy respirer donc euh, loolu bu ko président waxaatee encore ubbeekuwaat euh, je pense que loolu lu ñuy rafetlu la te jàpp nañ ne tamit opposition bi dinañ ci wuyu ji su ko defee ñu waxtaan euh, dem ci élection yi ci jàmm ak salaam le vingt cinq février buñ ca jugee nit ñi lundi ba nit ñi dem liggéeyi Sénégal jëm kanam loolu daal laa jàpp ni moom jàpp naa ne daal lu lu rafet la te lu lu jaadu la tamit rafetlu nañ trop taxawaay boobu nga xam ne président Macky bi dafa war a wuy ji si dialogue boobule waaw la. parce que ñu bëri. su su fekkee li ñuy woote dëgg la ci ñoom mu tàkkat mu nangam je pense que pourquoi pas war nañ toog ñu waxtaan pour où est le où est le problème dans ça. jàpp a wuy ñoom am na si ñoom ñoo xam ne jot nañoo euh, tontu ci loolu nee nañ waxtaan bi mën na nekk mais bu fekkente ni président Sall dafa du bokk ci élection yi ñoom d'accord nañ pour dialoguer ak moom. waaw ku si demee ni ki Thierno Bocoum loolu waxtaan te egg nga commencé teg ay condition moom dafay bëgg a nduru leneen hmm. yooyu yëpp ñuy wax yooyu yëpp ñuy wax ñoom nañ ko dëxëñ rek dugal ko ci seen saak buñ ñee toog ci waxtaan wi ñu waxtaanee ko foofu parce que ku ñu woo ci biir néeg pour ñu waxtaan je pense que ngay taxaw ci penc di di di wax dara a dem ci biir néeg bi li nga bëgg a yëpp kenn du la ko teree wax bu boobaa. voilà it euh, Yoro Seck euh, Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité bi. maa ngi leen di sant bu baax a baax te di leen gërëm jërë jëf. may fàttali membre nga ci secrétariat la communication ci parti mi merci beaucoup Yoro Seck merci beaucoup Yoro Seck.